waajal nag euh, bisub euh, Serigne Fallou Mbacké euh, njaboot gi yéen nan ngeen ci fas yéene demee ren nag contexte bi xaw naa am lu mu soppi tuuti. Ah, dëgg la ñun de xam nga moom li ñu wax mbirum màggatum pël la ñuy def rek waaw nañ màng ñu ne eyoo nañ toog ñu ne eyoo waaw sëñ bi la ñuy déglu rek waaw sëriñ bi nag ndigi li mu joxe mooy nañ ko def nañ ko defee woon daaw nañ ko defee woon daaw xam ne contexte bi réew mi toll ak pandémie bi ak ak mesure barrière yi ñu digle nga xam ne technicien de la santé moom la ñu digle ci loolu la ñu nekk malheureusement fekk ma takk masque sax waaye sama masque dafa nekk ci biir rek waaye maa ngi yoroon masque te ñun ñëpp ñu yoroon takk takk ay masque suñu gel mi nii à côté euh, bi tam ñu koy jéem a doxal doon jëriñu ne jafe na sax ci tayu murit waaye ñu ngi ak ñàkk a toog toogaay bu yàgg bi waaye euh, li ëpp solo nag ci màggal gi li ci gën a kéemaane mooy euh, bokk na ci amoon na daaw amaan ren mooy li fi jàng ci alxuraan li ñu fi jàng ci lim ci alxuraan daaw mosuñu ko jàng kenn màggal ren jii li ñu fi jàng ci alxuraan itam du mosuñoo jàng lu ñu man rek am naa daara joo xam ne jox nañu liste boo xam ne tey ci bëccëg jàng nañu onze mille quatre cent quatre-vingt-dix kaamil onze mooy dañuy def bu magal gi desee quinze jours ñu commencé te ki koy coordonné nekk Daaru Salaam dafa xam daar yu bëri Sénégal maanaam loolu defee quinze jours mu commencé euh, contact daara yi ku jàng juróomi kaamil yoo xam ne am na yu ci bokkul nga xam ne minimum bu ñu ko jàngee dana mat 12000 kaamil yoo xam jàng nañ ko te loolu mooy daara ji rek kon nag waxuma la ñu jàng ci yeneen daara jàng ci alxuraan jàng xasaayit def ay beer rek jox ci daara yi jox ba dëkkandoo yi ak mbokk yi eh, saafoonteeg benn benn yi ñëw loolu mooy ndigal li ndax dañaa def ay conférence def ay tànt def ay conférence def ay kuréel waaye yooyu yëpp ginnaaw sëñ bi nee nañ ko def nañ ko defoon daaw na ko waxee ndax ñun li ma la ko wax rek mbiru màggatum pël la ñuy wax dañuy def rek bu ñu nañ màgg ñu ne eyoo bu ñu nee nañ toog ñu ne eyoo <laughs> waaw. nga dikkal ñu ci Cheikh Mamadou euh, Fadal euh, ak ni mu daan euh, yaree ndaw ñi ak jamono ji gis nañ fi réew mi toll ñu barkeeloo ko. waaw noonu de ko xamee rek mooy yarub Cheikh Mamadou Fadal mooy yarub Sëñ Tuubaa rek te yarub Sëñ Tuubaa mooy yarub lislaam waaw ndax sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy royukaay bu mag bi dafa wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla ma yar moo rafetal sama yar yàlla ma yar moo sama yar Eh, eh, eh, yar boobu nag moom la doon doxee moom la jàngale mooy diine ji waaw te al adab al adaba digle na ko ba tàyyi te sëñ Tuubaa ba muy ñaan ñaanam gu réy def na yàlla ma daal yii laa soxla inni ilal ilmi wal amali do arabin wali ta addu bi suqaali wa kamil man sëñ Tuubaa li may ñaan xam nga sëñ Tuubaa li ëpp ci mbindam da koy def formule ñaan day mel ne sàkku ci suñu borom mu def xam nga te ñaan xam nga lu raaw la ndax mooy da sàkku ci yàlla def te yàlla nag bu defee li ñuy wax ne maatee lay signé waaw bu yàlla buy def dana maatee ndax kun fa yakun la jëfandikoo innama amruhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fa yakun kon bu ko defee sëñ Tuubaa li ëpp ci mbindam gis ne da koy def formule ñaan ba ñuy wax ak yàlla ko ne man daal yi bëgg inni ilal am xam laa bëgg wala amal akub liggéey loo arabi loolu mooy sama aajo wala ta addu bi akub yar kon dafa bokk ci compos composante yoonu murit bokk ci composante islam te sëriñ Fall ci loolu nekk na yàlla wax ne mag la mu yaru moo xam ne kom mu toog a gën a yaru day teral mag teral xale teral góor teral jigéen teral dëkkandoo tegal étranger tegal jàmbur tegal julit teral ko du julit waaw te eh, ci bëccëg rek maa ngi ciy nettali anecdote bu dee waar xam nga noonu mu lewete woon nag ni jamono day yàgg doy waar rek dafa am ay nit ñoo xam ne dañ bi ñu nekkee njaareem dafa amoon kër léegi nag am ay jamono mu topp mu mu ko ñëwee wax ko sëñ bi ne ko da nga yëgle ma da nga tàggoo mu ne ko am ah, mu sa ma ngi ca kanam mu ne ko mu ne ko kër gi ak ciment beeg fer bi lépp jox naa la ko addiya ca la toxoo njaareem ñëw sanc ndindi 1913 daanaka benn at dafa dafa am bi jox ko sëñ bi addiyee kër ga ñëw ñëw ndindi 1913 eh, kër googu nag def na ko lu yàgg ba ba gannaaw gi mu nekk ay benn benn seng mës a tabax sëñ Fallu bokk na ci xalif raar yoo xam ne tabax jumaa ngi toll jumaa ngi Tuubaa ji te mosoo dëkk ci tabax waaye ko ñax la dëkkoon loolu xam nga leçon bu rëy la waaw léegi nag ñoo ñu doon ko sànni këyit yi am ci benn bis nag xam naa dem nañ ba xaw doy waar bind këyit di ko won ne ko mm, luy jot jot na te it bëgg dañu fi bëgguñu ko fi nekk di jiital ay rakam rek te it lu jot jot na nangam nangam mu jàng ko ba nag ñooñu am audace yoon woowu nag parce que daanañu ko bind lettre lettre sax daawuñu def seen tur yoon woowu nag def seen i tur ñun diw ak ñoo signé lettre bi leen yéen waaw gis naa li ngeen bind de wax ngeen ci lu leen soob wax ngeen ko ca waaye nag Sëñ Tuubaa mi indi xéwal ba ngeen bew ba ba ñëwee ma ko wax moom ma yar ba ma koo dékku <laughs> moom ma yar mën koo dékku waaye dem leen du leen jariñ dara de ñooñu bu la waxoon nañ mujj rek yàlla xam doy na <laughs> yàlla xam eh, bëggoon nañ nga dikkal ñu ci eh, Serigne Fallou Mbacké nag ak Daaru Salaam dëkk bii di Daaru Salaam waaw foofa sëñ bi xam nga ne mooy dëkk moom fa la feeñe fa àdduna te màggal gi fa la ko daan defee xam nga damay wax ne Eh, Serigne Touba dafa gore mën a fay Serigne Touba borom lépp nga xam ne moo waral lépp eh, dafay gore dafa gore te mën a fay eh, boo seetloo màggalu Touba gi bu ñuy wax fukki ci mois de euh, safar Serigne Touba ko digle ñëpp xam nañu Serigne Touba ko digle wax ne ci lañ mës a dégg mu sàkku ndimbal yoo xam ne Serigne Touba natt bi metti metti li muy yàgg yàgg ci loxo Touba bi mësul ne u noonu la ko nettalee sul sàkku ndimbal itam mësul kenn dimbalu ma ko dul yàlla waaye ci santale ko yàlla ci la ma sàkku ndimbal mu bisu màggalu Touba yi ba mu demee nga xam ne natt yi dafa bari woon lool lool ba dat bi sax ba agsee yokk yi yokku ba sax bu dat bi masaan jub jub da koy waajal daf koy at ci géej géej ak bu nekkee bi bu nekkee Thièyène fu mu nekk rek saa bu fukki fan ak juróom-ñett safar jege 18 safar nat yi day yokk mu koy waajal ba 18 safar at moom mu ko diglee 1922 bi mu bi mu bi mu bi mu bi mu bi mu koy waajal suñu borom xamal ne ko natt yi kat jeex na tey waxuma la dootoo am natt waaye natt yi jeex na tey te it lu ma la defaloon rek dama dama koy ful bu dan bi accepté dama nag kon na ko def bi sant moo tax mu tombe bis bu mu commencé woon liggéey bi xarate yow ma sabti samina achar li xidmatil muxtaari fi chahri safar kon samina achar 18 safar boobu mu tàmbaloon génn mbàkki bari dem ci liggéey bi ci la natt bi jeex itam ci njaareem moo tax mu def ko bisu cant waaw kon kon du caagéen bis bi bis bi natt bi tàmbalee la tàmbalee sant déedéet bis bi natt bi jeexee lay sant waaye dafa tombe ak bis bi ndax la def bu bu bu bu bu dat bi accès natt bi yokkooti te yàlla yëgal ko ne kon dat baa ngi bëgg agsi bi yoon nag bi dat bi ak jubee mu koy waajal jàpp ne nattu yaa ngi yokkoti yàlla xam ne ko ne dée ne ko bi yoon waxuma la yokk waaye dafay jeex sa far te lu ma la defaloon bu dat bi agsi dama koy dama koy ful waaw nga xam ni mag ñu baax ñi soxna may mën a yàlla mu baax mi nee na ma sëñ wax na ne bis bu ñu demee àjjana te xam naa ñu ñëpp dañuy dem àjjana ngir sëñ Tuubaa incha allah te yàlla na yeex nag waaye ñun ñëpp àjjana lañ jëm waaw incha allah waaw loolu loolu sëñ bi noppi na ci moom loolu sëñ bi noppi na waaw yaakaaruñu fa leen lu dul sëñ bi nag waaye dañ ko yaakaar yaakaar gu ñu doy eh, mu ne buñ ci àggee jàmm nga xam ne amul nation bis ak heure ak ak at waaye bis bu date bi accès wax nañu xam waroon tomb 18 safar xéewale ñi nekk ci àjjana day yokk ba ñëpp dana waa lu xew tey yëf yi daal yokk na tey ñu ne ah tey kat bu doon ci àdduna dañ naan 18 safara jot waaw moo tax sëñ Tuubaa eh, nag nañ ko ci sant la yàlla waaye wóoti wu ko woon moom dafa ko nag lu waaye man ni ngeen ko déggee ak ni ngeen ko waaye mën na ko ci defal sant ci yàlla léegi nag ñun ñu ko defee noona dégg ngeen ba sëñ Balla Fally Dieng moom ci njëkk a wax ak sëñ Moulay Boussa ak yu ca xew yëpp ko def mag ñu ko leerale te am na ci leeral goo xam ne ci lam suñu saay lu jóge mu ne moo wax ne bu kenn wax tabaski nañ koy wax màggal ndax bu ñu ko tuddee tabaski waat day nekk bidaa ndax tabaski sunna mu akkada la yonente bi ko digle ngir yàlla Ibrahim waaye mu ne baatu màggal ku ko dégg suñu tubaab mu njëkk a waaw waaye nag foofu la yemoon ku ne toog sa di ko def sëñ Fall nag bi mu nekkee xalif ci la wootee nag ne Cheikh a nekk fi di ko def waaye kenn daaw ko woote ñuy def ba mu nag bu nekkee xalif 5 45 46 47 la wax ne lu baax foo ko defee baax na waaye dafa ko fi am kiiraay ndax ku baax ka fa nekk moo tax mu bëgg itam sow bi kon nañu ñëw fii di ko defee ci moom kon daaw ko daaw ko léegi Sëriñ Tuubaa nag li ma lay wax ne dafa mën daaw ko woote daan dem Daaru Salaam rek bu fa gontee fanaan fa bu bët seetee mu jógee fa jaar jaar sax sëñ soxna Abusa boobu moo nekk fii këram ma ngi woon fii suñu gannaaw ndax fii ci tëkkër soxna Abusa la bokkoon waaw mu ñëw soxna Abusa su fa jógee dem këram bu fi soxna jógee bu jógee Daaru Salaam fanaan Daaru Salaam bët seetee mu dem mu ñëw ci soxna suñu afe ñang nga xam ñoo bokk soxna Abusa bu jëm boobu naaj mu dem këram suñu afe ñang jógee mu jaar ci suñu murmaa mu ñang suñu bokk suñu xarit man kon loolu man maa ngi cee barkeeloo ci tànk yooyu waaw léegi nag bi fi jógee sëñ Fallou 68 woote luñ ko bis 69 wote lañ ko bis ba 70 sëñ Modou Bousso mi nga xam ne moo doon njëwriñu kër gi booba ak mag ñi dañoo a seet bis bu ñu jàppal sëñ Fall di ko fàttali ko di bi si wàcc liggéey ci i seen i mbokk sax benn yoon lañ koy dëj lañ leen di <laughs> <laughs> kon kon dëj benn na ci waaw léegi sëñ Modou Bousso mu nag doon waxtaan ak mag ñi seet bis bu ñuy def di ko fàttali ko sëñ Fall xalaat yu bari génn ñu naan bis bis bi mu jógee Makka ñu naan bis bi mu inauguré jumaa ji ñu naan bis bi mu eh, defee baytu yooyu mu adressé sëñ Touba ñu bari ñu ko ci wax fekk nag nee na sëñ mi ngeen di leet ak moom ñu dem Darou Salaam ndax bu doon dem Darou Salaam ñoom dañuy ànd ak moom ñoom ñu bañ ko teeroo ba dalal ne ko dañoo dem Touba ba dañu leen wooy dañu leen woo ñu ñëw fekk Darou Salaam na mu def leen nangam defal nangam defal nangam ku ne mu wax la la ngay def la ngay jàng ak la ngay julli ak la ngay kii ñu nekk ci ba fajar julli mu dooree na yow ma ngeen delloo ba ci kanam daal ne muudu nag nag na mu ko nekk Congo eh, am ñi ma àndal ñuy toog ci takkusaan gi di waxtaan waaw ñu waxoon a fàttaliku wax say idée bis sàngam bis bu jógee Makka bis bu ñu jumaa ji bis li ba mu yàgg waaye taxul ñu taxaw d'accord ci benn bis daal ñu jóge noonu dem dallu ji ci guddi gi nga ne suñu Fallu feeñu ko ne ko eh waaye ba ba fàtte wala mu la waxoon ci Daaru Salaam bis boobu xam ne kon suñu Fallu gindi ne ko waaw waaw ci la ñëwee ci la ñëwee daal koy wootee daal koy wootee première fois euh, en 1970 waaw taxawoo ko ba 2000 donc ba 2000 kon taxaw na ko 30 ans waaw te loolu lépp moo ko Alaaji Baara mi ngi tudd ñoo ko daan ànd Alaaji Baara mos ci feeñal boppam te quelques kon day mel ne la nekkoon diggante sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou moo moo répété waat fii cérémonie Kazu Rajab sax alaj baa daawut ñëw ñun ñi daawuñ ci dem dañoo bàyyi lépp sëñ Modou rek ci mujj gi lay def ay carte d'invitation duñ ci invité xam nga xam nga bu ñu dee invité ci cérémonie bu sëñ Fallou <laughs> waaw waaw alaj baa mi nga xam son sëñ mu daaw ja dem ci at yu mujj yi la la la ci daan dem nga xam ne boo seetloo ñaari at yu mujj yi dañuy dem ba toog ci tribune bi du ñëw sëñ mu dee wax ne alaj alaj baa ñëw du ñu wax waaye dañu ko tàmbali dañ koy jëli mu ñëw mu ne ko kàddu gàngu waaw kon loolu kon fayuk sëñ Fall la bis Kazu Rajab gis ngeen fi mu àgg léegi def naa nañu bëree wéranteetuñ ne gannaaw màggalu Tuubaa moo ëpp ci màggal yi kon day mel ne sëñ Fall la mu lebaloon sëñ Tuubaa ci màggalu Tuubaa ga safar loolu la ko sëñ Tuubaa fayee ci ci Kazu Rajab gi digganteem ak yonente bi mu ne dana cëpp man dana lay mën a cëpp waaw loolu xam nga waxinam la rek waaw lañ men xam nga sëñ Fall la doon poète dafa bëgg ay expression imagée imagée yoo xam ne mooy dafa bëgg wax rek ne guddi gi mu feeñ at ñëw àdduna moo dëppoo guddi gi yonente bi rañaane woon ñu Kazu Rajab te am kaso yëpp ma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab bi mooy tolloog isra wal mi'raj yonent bi voyage bu gudd boobu mu jógoon Makka dem Jérusalem jóge fa yéeg ci asamaan sa bi su kaso rajab la woon eh, sëñ fu gannaaw bi nag ay at yu garib bi gannaaw bi la sëñ Fall loolu defeñ Daaru Salaam waaw moo tax comme isra wal mi'raj yéeg la ca kaw waaw eh, waaw waaw moo tax yonent bi dana lay rek mu ne cëpp lay mooy yéeg jëm kaw ah. cëpp mooy wàcc <laughs> loolu la ko duggee rek waaw